te jógee ci maam yooya ñuy gàmmu gàmmu goo xam ne dañuy wax juddu yu sallallahu alayhi wasallam ak ki meloom ak ngëneelam ci ñun ñu di ko ndokkeelee ñëpp di ko tàmbalee ci benn point ñi nga xam ne dañuy diingat te diingat mooy liyool yool tubaab def contre ne bésu yonent bi wax ci def ci dara dafa nekk lu ñaaw wala lu araam wala lu bon wala lu bidaa te loolu yëpp dara amu ca ndax loolu ñu koy wax dañuy fen ndax ku weddi ku weddi yàlla fen te yàlla mu wax ci alxuraan ne yàlla ci boppam mi ngi juddi mi ngi julli ci yonent bi moo ki malaakam te julli gi yàlla ci bi mënta doon lu mooy màggal ko kon nag bu yàlla màggalee malaaka yi màggal mu sancu ne màggal leen ko sallu alayhi julli leen ci moom mooy màggal leen ko ci olof ñu màggal ko gàmmool ko ñi doon màggal moom la ñuy màggal ñi gàmm moom la ñuy gàmmool kon nag loolu yàllaa ko njëkk santaane mu wax moom yàlla ci alxuraan ci baatu ci lam yonent yàlla Isa ne julli maanaam na ngeen mal ci man maanaam na ngeen ma màggal na ngeen xam sama dayo na ngeen génne sama dayo ci bés bi ma juddoo ci bés bi ma dee ak ci bés ba may dekke lii beexu alxuraan la xanaa lu yell ci yonent yàlla Isaa ci ci bésu juddoom xanaa kay lu ko raw mooy yàlla ci bésu juddu yonent bi waaye doon lu ko yées